ñoo ngi nuyu ñi fi toog ñëpp di sant ñëpp di nuyu sëñ aadi mi nga xam ne mooy sunu responsable di sunu kilifa di kilifteefu mouvement tànd mi nga xam ne ñoo ànd ak le président de la république di nuyu tamit sunu kilifa gu baax gii fi toog euh, di sëriñ Dramé Guissé mi nga xam ne wax dëgg yàlla ànd naa ak ñun boobu ba léegi di jàppale di jàppale Serigne Adi ñuy xale yi fi nekk ñëpp turu mouvement bi mouvement ànd tànn defar ànd ak mbooloo mii ñu àndal nag di ay jeunes yoo xam ne ñu ngi ci ginnaaw sëñ aadi boobu ba léegi ñu ànd ak président de la république du nuyu tamit kilifa yi ci dëkk bi di leen ziar sunu sëriñ yi sunu bàyyi sunu lépp di leen ñaanal yàlla may leen wér surtout xalifa bi di ko ñaanal yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér ak képp ku ko yéene di ko ñaanal sunu bopp di ko ñaanal tam sunu président de la république mm-hmm. président Macky Sall mm-hmm. mi nga xam ne nag sunu njiit mi ba nu àndeek moom ba léegi muy sëñ aadi loo waxte waxoo ko waxu président déggu la mm-hmm. ñu koy ñaan nag yal na ko ci yàlla may ndam li mu bëgg ci moom bëggal ko ko bëggal ko réew mi bëggal ko tiwaawan bëggal ko xale yi mu àndal jaboote ko nangu ko ko yal na ko sunu borom may ndam ndamam nag mooy ndamu président mooy ndamu ñëpp ndax setu alaaji malik la yaakaar naa ne ñaanam rek doyoon na waaye dafa bàyyi léppam ànd ak ñun ci tàngaay bi seddaay bi neex neex beeg naqadi bi yëpp mu jàppale ñu ci lépp nag li ko waral mooy président de la république loo ko woo ci moom mu wuyu la ci bañu ci dara kon nag monsieur président ñu ngi lay ñaan ci barke tarixa bi ci barki bés bi nga ñëw barki démb muy cent cent ans bi ak mm, ndimbal gi nga xam ne moom lañ bëgg ci moom bëgg ko ci yow ndax boobu ba léegi nag déggoo ñu ci dara lu dul loo bëgg bëgg nañ ko waaye ñu bëgg nag sunu sëriñ bi sunu wasila bi sunu xarit bi di sunu àndandoo di sa soppe ah di la wax na la mbooloo ngi topp ci ginnaawam boo xam ne ñëpp ay responsable la ñëpp ay nit yu dëggu lañu 2012 2013 ba fii may waxee yow ñu ngi ànd ak moom ñu bëgg nag nga am loo ñu ko jàppaleel ci élection yi di ñëw incha allah mook responsable yi ne ci dëkk bi ndax nag kenn ëpp ko ci doole kenn ëpp ko ci priorité kenn ëpp ko ci sañ-sañ te lépp a ngi ci ginnaawam ñuy ñaan yàlla na la ci yàlla may ndam ci réew mi ñu nekk ak dëkk bii nag Tivaouane nag 100 pour cent ànd nañoo ko yow ndax bëgg gi nga bëgg Tivaouane ak euh, jàppale gi nga jàppale Tivaouane waaye bëgg nañ tamit président nga jàppale sunu sëriñ bi ndax nag boo ko laalee laal laal la kon nag dañoo bëgg nag nga loo ñu defal rek nangul nañ la waaye nag na nga xam ne mbooloo moo nekk ci ginnaawam nga jàppale ko mu jàppale ñu ñu ngi gërëm ñëpp nag di sant ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan nag élection yi yal na la ci yàlla may ndam loo foogul fenn ci barki alaaji Malick mi taxoon nga ñëw barki démb ci naaju tàng wi sonn wax dëgg yàlla kenn ku ne yaakaar nga am yàlla bu yàlla tas benn yaakaar ak kilifa diine yi ci réew mi yëpp yal na la yàlla defal jàmm defal ñu ko sëñaat yi ñun ñu ngi ci ginnaaw mbooloo maa ngi ci ginnaaw yaay sunu sëriñ yaay sunu xarit yaay sunu àndandoo te wàcc nga oyofoo diisoo wax dëgg yàlla ñu ngi lay ñaanal yàlla nga fekk lépp yow it ndam li bu ñëwee yàlla la nga ci gis sa bopp waaw loolu la ñuy ñaan di ñaanal xale yi nu àndal ak jigéen ñi ñëpp ndax kenn ku ci ne takku nga te li takku bi yëpp pour bëgg président am ndam rek la waaw kon yàlla na nañu yàlla defal jàmm ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp aouzu billahi samil alim min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim Euh, ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi di am mbégte tabaarakallah di nuyu nag di ziar di jiital ci nuyoo bi suñu sëriñ suñu wasila sëriñ Babacar si Mouhamadul Mansour xalif général ji Tijaan di ko ñaanal yàlla wér ak gudd fan yéene bi mu am ci kër Cheikh Sidi am ko ci diina ji ak mu sumb yàlla may fekkee ko ak tal ko ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci barke Cheikh téeméeri at borom centenaire bi di nuyu nag suñu soppee bopp suñu xarit son excellence président Macky Sall ma bëgg ngeen tàcc ko moom loolu la yàlla dogal ci man ci yéen ah di ko nuyu di ko ziar di am mbégte nag lool tabaarakallah ci taxawaayam di nuyu mouvement bi nga xamee ne nii moo waral tey jataay bi woote muy mouvement tànn mouvement de soutien tànn Tivaouane ànd njukkeel ci ngor a ah, woote woon nag tey li waral daje bi sant rek alhamdulilah rabbil alamina mooy defe naa ni bis ñi tey lafi fi président Macky Sall ñëwoon tey la samedi ñu war koo ngénte nit ki boo amee gan muy mbégte ci yow bis ba dellusee war ngaa woote wan ne kontaan nga mbég nga loolu waral jotaay bi di gërëm nag son excellence wolof Njaay day wax ne koo xamul noo koy def namul dafa tax ñëw na Tiwaawan def fi nag lu ñu teg bët waxuma lu ñuy dégg de lu ñuy teg bët bu ma ne lu ñuy teg bët lan ak lan lan la li passé kenn dootu ko wax ndax samp nañ koo pare mais li nga xam ne yéene na ko ci Tiwaawan bi ci njëkk mooy def na pause pour pierre boo xam ne yàgg nañ koo bëgg yéene bi amoon na trop mais yàgg nañ ko bëgg yar yàgg nañ ko soxla tey la ko yàlla dogal ci son excellence président Macky Sall def na ko muy niveau trois ci dix huit mois tuutiwul a ah, loolu dayul mu ne dafay def autoroute boo xam ni dafay jógee Dakar dem Saint-Louis mais Tivaouane lay jaar te ñun yàlla def na amuñu nag a ah, lu dul Tivaouane kon tabarakallah bu ma nee dinañ ko gërëm war nañ ko gërëm loolu dayul nag jumaay Cheikh Sidi Hadj Malick nga xam ne amuñu lu dul moom wax na ko ñu dégg defoon na defaat na te nee na dinaa defaat wolof Njaay dex ne ko la jox añ jox la ndékki bu leen di nga reer war nga koo gëm kon président su waxee loolu war nañ koo gëm kon jërëjëf te dañu wax ne jàmb yàlla gërëm loolaa ca ngërëm la lu mu tuututi am ca yaakaar naa ni Cheikh Sidi Hadj Malick borom téeméeri at ci biir suuf yàlla gërëm na ko kon tabarakallaa suñu yaakaar tabarakallaa ci président de la république yàlla na ko yàlla dégg yàlla na ko yàlla nangu ah may ñaax nag waa Tiwaawan mu ne waa Tiwaawan waa département bi su ma nee waa département bi waa Sénégal lay wax ci kan ci fii ñu jëm muy élection yi di ñu war cee bàyyi xel bi ci njëkk damay wax ne ñoo responsable politique yi nekk Tiwaawan yëpp lay waxal ñu fas yéene ànd nekk benn xam ne kenn soxla muy président Macky Sall li may bëgg bëgg man président Macky Sall am na ñu ma ko gën a bëgg ndax dafa def ñoom teranga am fu mu jaar ak ñoom te bu ñu leen dégg président Macky Sall tax kon ñoom nañu ànd fa yéene nekk benn xam ne président Macky Sall moo bëgg moo soxla ki mu jiital muy soxna seen bu koy ture ak ay miiru ñu ngi ñoom soxla wu ñu bëgguñu président moo bëgg kon nañu fas yéene waa wala fas yéene ànd uti ndam li jox président Macky Sall loolu laay ñaax waa département bi waa commune bi mais waa raison bi mais waa Sénégal ah di am loo xam ne nag maa koy man la man la man la concerné man addis njaboot gi nga xamee ne mooy njabootu Cheikh Sidi Malick bi ñu yaakaar ku ne am nga droit far mais ku ne am nga droit contre mais ku ne am nga droit neutre mais ñii neutre am nañ ci droit mais ñii contre ñu ngi fësal seen contre ci président Macky Sall mais may ñaan nag ñi nga xam ne ñoo far ak président Macky Sall moom ci nañ koy fësal ndax nit ki kat ah lu la li ñu boo yoree mbir lu la jaral pour mu baax na la ko jaral pour mu gën a baax waaye mbir boo ko yoree mu jaral la mu bon na la jaral lu mu la jaral na ma jaral mu gën a baax ñun nag li ñu yor loolu nit nit jaral rek pour mu yàq ko rek ñu jaral nañ pour mu baax muy président am ndam tabaarakallaahu ah ñoo ne woon tànn kuñ tànn son excellence président Macky Sall ba pare léegi am na 9 ans ñuy dox ba jamono neexaar xaar ne ñoo ñoo ne waaw muy 2019 kon tey nag ñett yi ñu bàyyi ko xel bu ma nee ñett yi lépp leer na Macky dong Macky rek kon tabaarakallaa mu bëgg ngeen tàcc loolu loolu la yàlla dogal ci ñun di nag gërëm ñëpp di ziar ñëpp di bàyyi xel ne fii ñu jëm nañ ñaan yàlla de yàlla defal ñu jàmm jàmm ci la lépp xaj ku ne am nga droit far fa la neex ku ne am nga droit contre ka la neex ñun nag yàlla def ne mënewuñu saaga mënewuñu xaste mënewuñu dóor ndax du suñu jikko waaye nag am nañu droit nag ñaanal suñu njiit ñaanal suñu président de la république ba ndam li ñu bëgg ci moom sénégalais yi bëgg ko ci moom am ci moom yaakaar majorité bi am ci moom yaakaar yàlla na ko yàlla defal ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci barke suñu sëriñ Cheikh Sidi Hadj Malick Sy ah loolu laa amoon ci lu may wax rek tabarakallah di gërëm son ministre de l'intérieur Antoine Félix Abdoulaye jom ah muy ku ko taxaw nag ndax defe naa ne di nga am njaboot sax mu yées waaye def naa ne moom am ko mu gën ñàkk ko muy Antoine Félix Abdoulaye Diome ci taxawaayam ci këru diine yi ci taxawaayam ci son excellence président Macky Sall mais ci taxawaayam ci sénégalais yi kon gàcce ngalaama Antoine Félix Abdoulaye Diome tabarakallah encore une fois di la ñaanal yàlla yaakaar bi son excellence am ci yow ba jox la cër bi yàlla ni yàlla jox la ëpp sa njort ñun daal ñu ngi sa ginnaaw à cent cent loolu la yàlla dogal ci waaw nag nii nag caw li mën naa bëri ku ne mën ngaa far waaye daal may ñaaxaat sama mbokki bopp yi te bokk ci njaboot Cheikh Sidi Hadj Malick te ànd ak président Macky Sall nañ koy fésal ndax ki contre mi ngi fésal kon ki ànd ak président Macky Sall na ko fésal loolu la président soxla wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh